asalaamaaleykum sama mbokku sénégalais yi man la Dame secretaire général national bu CUSEMS authentique membre de la société civile taxaw ak euh, Khalifa Ababacar Sow nekk responsable ci CUSEMS authentique dama ñëw pour wax leen mbir mu garaaw moo xam ne moo xew Sénégal démb bi ma demee ci émission faram fàcce bu TFM bi émission bi jeexee minuit et demi jëm une du matin dama jël sama oto di ñibbi bi ma ñëwee ba nga xam ni maa ngi jaaree ci corniche bi dépare donc TFM Almadi jëm booru euh, Dakar parce que dafa amoon embouteillage ci yoon wi jëm booru yoof ma topp donc corniche bi pour euh, pour ñibbi bi ma demee bay tollook ma rombee euh, camp camp militaire bi dem ba tollook mosquée de la divinité ma yëg ay tiir yu am ci sama oto ma yëg ay rafal ay tiir yu garaaw a garaaw yoo xam daal bi ma ko déggee xam naa ne lii ay bal la bi ma ko déggee ma daal di accélérer sama oto daw euh, ay xel yu mag ba nga xam ne daanaka doo daane sax bu mooy ñëw damay mel ni kuy kuy kuy kuy kuy tëb parce que li ma doon daw bëri na pour mën a échappé wu ci tiir yi nga xam ne moom lañ doon def sama oto tiir yooyu bi ñu ko xoolee benn bi mi ngi nii ndaxte mat na juróom-benni impact yoo xam ni dóor nañ ko ci sama oto benn bi mi ngi nii mën nañoo ubbi oto bi ñu ñi gis ko. fi mu génn mi ngi nii fi mu bët ja dugg na ci biir ba euh, ba bët ba bët portière bi beneen bi nga xam ne moo ci am mooy bal mooy bii nga xam ni moom it fii la dugg ba toj verre bi moom moo toj verre bi nii parce que fii la bal bi dal fii la bal bi dal donc lii la toj léegi bi ñu paree foofu ñu gis également beneen tir boo xam ni mi ngi nii ci feu arrière bi moom tamit bal lañ fi dóor muy bal réel bi ñu paree foofu ñu gis yeeg également ñaari impact fii yoo xam ne bal réel la aussi gis ngeen ko benn baa ngi nii bi ci des mi ngi nii muy portière arrière euh, droit bi mi ngi nii moom tamit bu ñu xoolee ci biir portière bi gis ngeen dafa bëtt ba sar gis ngeen ko nu mu mel nii waaw beneen bi tamit mi ngi nii bal bi ñëw na ba ci biir ku ci nekk gis na ko mi ngi noonu fi mu am impact ci biir oto bi donc lii moom lañ lii moom mooy li nga xam ni moom lañ gis ci bët bët yi ci oto bi gis ngeen ko bii tamit impact bële ci biti moom moo dugg si ba ci biir oto bi gis ngeen bal bi ni ko def beneen bi nga xam ni moom moo beneen bi nga xam ni moom moo nekk ci oto bi mooy bii nga xam ni moom it bal réel lañ ci dóor. gis ngeen ko impact baa ngi nii mooy sixième bi bii mooy juróom-benn bal réel bi ñu def euh, leneen li def aussi mooy pneu bi bi may daw bi may daw presque euh, comme pneu bi tubeless la euh, mënoon naa cee gaawantu bala muy peer pour ma daw donc boobu maa ngi ci danger mais comme dama bëggoon rëcc il fallait ma daw mu gaaw mais boobu pneu bi maa ngi sentir ni ci tableau de bord bi wan na ma ne ma pneu bi. pneu bi pneu bi pneu bi am na problème donc dañ ci dóor tamit benn bal donc dama ko changé nii pneu bii moom moo doon pneu secours bi moom lañ changé andi ko remplacé ko pneu secours bi donc muy muy juróom-ñaari bal yoo xam ne tiire nañ ko ci sama oto bi ma déparé jóge TFM di ñibbi sama kër bi ma demee nag ba xam ne tiir yii euh, liñ ci jublu mooy rey ma ñu mën koo tuddee tentative d' assassinat euh, léegi dama gaawant xool nu ma mën a rëcce donc bi may daw ñoom mun ñu ma dab parce que dama accéléré daw lu baree baree bari léegi nag bi ma demee ba ba tolloog euh, comme maa ngi ci corniche bi ma xalaat rapidement ne naa dem foo xam mën naa faa rëcce parce que boobu ñoom li ñu bëgg mooy dab ma bu ko defee mun maa mun maa faagaagal léegi ci laa dem euh, tolloog Radisson bi ma tolloog Radisson ma daa di gaare oto bi ci buntu Radisson daa di wàcc dem wax ak vigile bi ma wax ak bi expliqué ko ne ko. dafa am ñoo xam ni ci yoon wi dañ maa tiire ay balles réelles léegi balles réelles yi sax d'ailleurs mi ngi nii am nañ ci ay débris yoo xam ne ñi ngi ko fore ci biir oto bi yoo xam ni effectivement euh, nii la demee te même au niveau de l'hôtel ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ma doon sauvé parce que bi ma yegsee wax ak vigile bi daf ne ma léegi da ngay gaawantu nga dugg ci biir réception bi parce que booba ñoom ñi ngi gaare seen oto ñoom tamit oto bi nag man gisuma ci ay numéro parce que aw moon sa sax di xool ay numéro li ma li ma li ma li ma doon fexe rek mooy fexe ba dugg ci hôtel bi pour mën a sauver sama bopp mais bi may dugg maa ngi naan vigile bi bu fekkee oto bi am na numéro fexeel ba nga jàppal ma numéro bi mais mu jul am numéro bi euh, mais bi ma duggee euh, ci biir euh, ci la ma yeneen vigile yi tamit daal di jël yóbbu ma ci post de commandement bi pour mën ma fa làq pour que ñu mën ma ñu mën ma sauver bi loolu amee nag ci la ñu euh, wàcc ñoom ñoom ñu dugg si ba ci biir hôtel bi parce que ñoom ñi nga xam si ñoom ñoo ma doon ñoo ma doon dàq tiire sama oto ay bal réel yi ma leen woon dugg nañ ba ci biir hôtel bi ay caméra de caméra yi fa nekk sax jël na ay image te image yi daañ leen ko woon parce que caméra yi jël nañ image donc loolu mooy li nga xam ni moom moo am bi nga xamee ne wàcc naa oto bi nag ba dugg ci biir hôtel bi dem ci euh, réception bi ñoom ñëw nañ euh, sama oto bi may wàcc à distance verrouillé naa ko verrouillé naa oto bi mais desoon na ci euh, kanam ci weeru kanam bi loo xam ne mënoon nañ fa dugal seen loxo léegi comme yégaluma ko boobu talu ma ko parce que li ma doon gis rek mooy ma fexe ba sécuriser oto bi wàcc léegi bi ñëwee wut nañ ay pexe ba euh, da ba ubbi porte bi am na lu ñu dugal ci biir ba ubbi porte bi bi ñu ubbee porte bi dugg nañ ci oto bi jël nañ samay caabi. samay caabi yi nga xam moom laay ubbee sama kër ak samay bureau caabi yooyu jël nañ ko jël nañ également euh, sama permis de conduire jël nañ sama carte grise jël nañ sama assurance yooyu yëpp jël nañ ko euh, carte grise yóbbu nañ ko ak euh, ak sama ak sama ak sama sama carte grise lañ jël ak sama permis de conduire ak euh, euh, assurance bi donc loolu la ñu yóbbu parce que sama carte d'identité mi ngi ci mi ngi ci beneen étui bi donc loolu booba gisuñu ko mais mi ngi woon ci oto bi mais li ñu gis rek ñoom lañ jël même sama téléphone ma nga fa woon ci biir oto bi mais jotuñu ko gis ndaxte fi mu waddoon bi may wàcc jotuñu ko gis ñoom mais dugg nañ sama oto kon fuyee ko def ci lu leen neex xaw ma sax ndax def nañ ci leneen parce que ñoom capable nañ lu ne donc li nga ciy jàngate mooy bi ñu xëyee nag euh, bala ma yegg si jàngat bi. mooy euh, comme dañ ma téye ci poste commandement bi pour sama sécurité ñoom vigile yi ma leen ciy gërëm parce que man dama nekkoon une personne en danger nit nag bu nekkee ci danger euh, nga dem da ngay xool fan la fan nga mën a mucce bi ma yegsee tamit ñoom def nañ seen devoir euh, protéger ma yóbbu ma ci poste de commandement bi xam xamuñu sax lu xew booba mais dañ ne ma dañuy xaar ba suba ba seen ba seen patron ñëw bu ko defee moom mooy def liggéey bi léegi fa laa kon ba ci suba teel gi. ma woo sama avocat mu ñëw bi sama avocat ñëwee euh, ñu def euh, mu woo moom bi mu yegsee ba ma expliquer ko le xew lépp euh, mu woo benn huissier huissier bi def constat bi def nañ constat bi daan ñu ko jébbal ci waxtu yi nu jëm avocat bi tam dina ci def li mu ci war a def pour def plainte bi ba noppi ñu topp ko bu dee réew mi réewum yoon la dinañ xam lii kan moo ko def am na ay sele parce que bu ay image xësee xam bu ay image xësee am loolu day daal di leer naññ man nag dama gëm ni bi ma déggee coup yi liñ bëggoon mooy ma tiit daal di mbëkk dara bu ko defee bu ko defee bu ma mbëkkee dara ñu daan ni voilà moom daa accidenté wala lii moo ko dal et wut ay lay wala ñu rey ma sànni ci géej gi ñun jàpp naa ne man ni loolu lañ bëggoon mais heureusement que man paniqué wu ma dama téye sama oto daw ay xel euh, même bu fekkente ne benn benn pneu bi ci kanam boobu am na am na am na problème ba mu ngi peer mais naxante naa daw nag wax dëgg yàlla lu bari loo xam ne daw bi rek bi doon daw maa ngi woon ci danger ñu topp sama ginnaaw parce que dañu yaakaaroon xëy na ne dee naa moo tax topp ñu ma teelu ñu maa topp mais bi ñu demee ba gis ne maa ngi daw lu bari xëy na ci lañ ma topp fekk rawee naa leen lu bëri loolu tax ma jiitu leen ci hôtel Radisson bi ba ma yegsee ma gaare ci buntu bi comme ni ma ko waxee bala may jot a wax ak vigile bi di ko expliquer comme vigile bi il a été très professionnel ni ma tu en danger duggal ci biir réception bi bu ko defee di nga fa fekk sécurité beneen boo xam si ñoom ñoo lay taxaw lool moo tax bi may dem ñoom seen oto ngi gaare ci sama kanam ci kanam hôtel bi te gis naa ci ay gyrophare loolu maa ci teg sama bët ba noppi nag ñoom bi ñu yegsee ñoom vigile sax wax nañ ni ñoom bi nu wàccee dugg nañ ba ci biir ba ci biir réception bi ñoom ñoo ñu ñëwoon ci oto boobu am ay gyrophare nga xam ñoo tiire sama sama oto loolu aussi lu ñu mën a firndeel la. parce que effectivement bi nekk see jéem nañoo présenter euh, ay cartes yu wane na ñoom ay takk der lañ euh, naa man gëm naa ne ay tapp la lañ parce que li ko li lii ñëpp xam nañ fan yi ni ko ñëpp di junjee ni dañoo yor seen i nervi donc euh, photo yi sax wane na ko dañoo civilu parce que bu fekkente ne da ngay def sa liggéey ci heure bu mel noonu jàpp nañ ne waroo am yenn tenue yi donc. loolu lépp de toute façon li ñu bëgg mooy enquête bu leer am ci bu ko defee ñu leeral mbir mi nan la demee ak kan moo def loolu ak kan moo bëgg a euh, faat sama bakkan parce que man jàppantewu ma ak kenn réew mi nag leader d'opinion laa fi nekk syndicaliste bokk ci société civile bi di am sama xalaat ci réew mi di ko wax nekk ab syndicaliste barki Dembo Ndiaye jàngalekat yi massivement votel ma xëy na loolu lépp bokk na ci leen tiital parce que tiit nañ école bi am a yëngu ak aussi li may wax ci ay dossiers yu bari di ko leeral teg ko ci dëgg moo tax ñu tiit man nag jël naa sama euh, euh, sama responsabilité yëpp wax naa ak ñi ma war a waxal sama euh, kaaraange mi ngi ci loxo nguurug Sénégal. mi ngi mais ñoo war a jël seen responsabilité lépp lu ma dal ci ñoom la mais li ma gëm ni kaaraange nit doomu aadama loolu waxin la mais kaaraange doomu aadama mi ngi ci loxo yàlla subhaanahu wa taala ñun wàkkiirlu nañ ci euh, ci ci ni euh, yàlla subhaanahu wa rek moo fi nekk dañoo jàpp ni képp ku am kaaraange yàlla subhaanahu wa taala moo la ko jox yaakaaroon kenn ku dul yàlla subhaanahu wa parce que lii ma rëcce bu fekkante ni du yàlla subhaanahu wa taala kon heure bi fekk na ñu ngi may jagat jagatee naan dañuy yóbbu suuli kon li nga xam ne moo am maa wax sénégalais yëpp ni nguurug président Macky Sall lu ne jaral na leen ko fi mu toll nii parce que dañoo tiit ñun nag kenn duñu intimider kenn duñu xoqatal kenn duñu jaay doole bu dee dañoo yaakaar ne mën nañoo napp nit ñi ba kenn du yëngatu dañuy nax seen bopp ñun defuñu lu ñuy tere Sénégal dañuy wax suñu xalaat ci réew mi di dox di gis wax suñuy gis-gis ci réew mi te amul kenn ku ñu yàqal wala kenn ku ñu def dara nguur nag jërul yenn yi bu la nguur àggee fii nga xam ne suñu dund gii léegi mu jeex man ko yaakaar sama bakkan bii yow euh, moom nga soxla jël ko bu fekkente jàpp nga ni loolu moom moo lay moom mooy sandam dama jàpp ni képp ku fi jël bakkanu jàmbur ëllëg bés penc parce que ñun dañoo gëm ni bés penc dafa que ñun ay jullit lañ gëm ni bés penc ku ci nekk li nga fi def ci àdduna di ko rendre compte kon nag ñun amul kenn ku ñu mën a taxaragal kenn mënuñoo xoqatal fañ taxawoon la ñuy continuer taxaw di wax suñu xalaat ci réew mi te doon yàqal kenn waaye teg ko ci dëgg parce que réew ko tegul ci dëgg musiba dina na fi am te loolu mun ñu ko nangu tey mun ñu ko nangu ëllëg kon nag maa ngi wax sénégalais yëpp ni sama je en danger parce que bu ñu demee ba taxaw bëgg maa faagaagal bëgg maa bëgg a faat sama bakkan ça dire que kon ñoom pare nañ pour lu ne pour pour pour li nga moom lañ bëgg def ñu mën koo def ci jaay doole. kon nag maa ngi euh, jé jébbal sama bopp askanu Sénégal di wax ne lépp lu ma dal ñoom la actuellement nag yàlla subhaanahu wa def na ci sutura amul benn bal bu ma ci laal. wax dëgg yàlla maa ngi ak sama wér-gu-yaram amul lenn loo xam ne jëlee naa ko ci mais liñ bëggoon mooy rayma ma rey ma nag yàlla moo yore bakkanu doomu aadama bi yàlla dogalul ma dee waaye li ñu tiiree juróom-ñaari tiir yi ñu tiire ci sama oto benn tiir dong mënoon na ma cee rey te am na ci yoo xam ne ci sama chaise bi ma toog la def impact kon dee mënoon na cee am waaye ñoom euh, lañu lañ lañ ma nasaroon lépp yàlla màbbal na ko léegi nag maa ngi wax sénégalais yëpp ne lii nañ wax président Macky Sall nguur jaru ko àdduna bi jeex na ba noppi lii muy jéem te sénégalais yi taxaw ku ci nekk wax ci lu mu xalaatam ni ko yow teg ko ci suuf pour jàmm am ci réew mi képp ku doon naafeq da nga koy wax ne ko lii mu bëgg a def ni ay jaay doole la ñun nag kenn mënuñoo xoqatal ba duñ wax suñu xalaat ci réew mi kon nag defuñu lenn bëggoon nañ maa rey yàlla ñëw na ak euh, dogalam ne lañ jéemoon ci man yëpp dara sottiwu ci kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni encore une fois président mac Sall ñi mën a wax ak moom nañ wax ak moom ñu xam ne lii muy jéem ci réew mi ay fitna dong la fi andi ba nguur warta jar ngay jéem a faat bakkanu doomu aadama te ñoom dañoo bëggoon a faat sama bakkan parce que damaa ñëw ba tolleeg tolloog mosquée de la divinité jógee TFM après émission faram fàcce ñu tiiree juróom ñaari yoon ci sama sama oto ba mu def ay impact ci biti ak ci biir loolu garaaw a la loo xam ne ñu ngi koy naqarlu de wax ne képp kuy sénégalais war nga koo naqarlu jërëjëf